jërëjëf Serigne Touba ñu ngi leen di siyaar baax baax mbokk ñu topp ci Omar Saloum TV ah OSTV ñu ngi leen di siyaar di am mbégte bu baax baax teewaat fi tey ñu nuyu mbokk internet yëpp ah ñu ngi leen di siyaar baax baax rawat nañuy safoo làmb te ñaan ko abonné bu nga daal di abonné ba si cloche bi ah chaque jour da ngay am revue de presse làmb dara luy actualité làmb du la ump da nga koy am ak bëri yeeg seen wàccaay yu demee noonu ci wàllum vidéo lépp loo xam ne daal ñor na wàllum làmb di nga ko am ci biir OSTV ah te ne dañu daral benn espoir benn champion benn daanam di koy wax carrière numéro 2 carrière maa ngi lay siyaar ale ziar bu baax Baye ci loo ne. maa ngi sant yàlla bu wér. maa baax a baax a baax. ndeysaan mais balaa ñuy tàmbalee waxtaan bi fi ñu koy dooree mooy lu waral carrière bi. waaw carrière nekk xale nag. Hmm. nekk ci làmb. ñu hmm. ñu bëgg ci làmb tamit. yaakaar lu bëri ci làmb tamit. Hmm. tax ñu jël suñu bopp. tuddee ko benn champion daanaan ci làmb muy carrière numéro un. di doomu reefu. ñu koy nuyu au passage. ndeysaan sama doom ko bu dee ci man baax a baax. loolu moo waral carrière 2. carrière 2 carrière 2 Baye Fall bi nag la gars yi gën a ràññee ah. carrière 2 Baye Fall. Baye Fall waaw. Baye Fall la day yor kuur ba mu yor ay njañ ba muy naan kafe. dëgg la gisoo laafa bi Fall ah. ah. fu ñu nekk ak ñu yor njañ yi wala ñu yor laafa yi yaa ma gën a xam. Ah. Baye Fall maa bi kuréel si lépp ci biir. ndeysaan jaajëf Fall. Ah, mais ginnaaw loolu carrière 2 bi nga nekk ban écrit ci écrit. waaw maa ngi écrit plateau maa ngi écrit plateau. Hmm. maa ngi écrit plateau laa nekk nag. di ziar bu baax tamit suñu grand yi foofu suñu côté yi ku ci mel ni ñoom Guy John ak ñoom Moussa. doomu ñaar maa ngi koy bégg bu baax a baax di gërëm champion yi ci nekk tamit ku ci mel ni ñoom kii euh, ñoom dogaloo mm-hmm. ak ñoom bala yaane ñoom céeri gaa yëpp laa diggé ñoom dimle ah. ñoom santaat ñoom yëpp laa jox seen waccaay ñoom gennaa di ma dëgg noonu la demee maa ngi nuyu sama doom yaay ndongolu ah dëgg la ndongolu maa koy bëggee bu baax a baax ñoom bala yaane gaa yi foofu maa leen siyaar grand muy joon mention spéciale kuy sonn ci yéen billaahi kuy sonn ci yéen saa su ne day bëgg ngeen di am ay combat di am ay ndam dëgg la moom noonu la mel nag am champion bu mag ñoom carrière gaa yëpp nekk ay bëri

ma demee bay taxaw teg dem si parce que baax kii sama grand bi falo falo bi maa ngi koy ziar saa mm-hmm. bu baax ku ci ne tamit sama korsu korsu bañal maa ngi maa ngi koy bu baax a baax di ziar woon ay frère mooy uh-huh. jooy ñëpp waxte uh-huh. ma kenn ndeysaan man noonu la demee dem ñu ngi lay ziarat bu baax di ziar Bawol yëpp mais mun nañ xam Bawol fa nga dooree làmb ji ñaata combat ma ngay ba bëri yooyu noonu. waaw boobu nag waaw bu laa dooree lamb yaakaar naa boobu moom la ma ko def ci boppam yaakaar naa xëy na du ma ko mën a wax parce que boobu tamit bëri. naa ko bëri naa trois combat bawal bawal trois combat laa ko bëri. ñu nga fa daan ñu ràññee tey ci lamb. waaw yaakaar naa su ma jugul nag ñi ma daan ñi ma fa daan yëpp moom yaakaar naa ne moment bi wax ak yow moom. Mm. Euh, dégg dégguma leen ci kaw daal a rek yàlla. mais est-ce que def nga fa jaloore tamit. non man ah, fekk même Ndokolo ma bawal waaye ñu a toj na fa. waaw dégg nga gars yi li ñu fay def rek jàppal na ko wax moo ma jëloon sama laaf it muy noonu moom moo ma moo demee noonu loolu moo tax. Mm. maa bëre wax dëgg yàlla maa ngi def tamit lépp loo xam ne war na ci làmb daal mm. di bëgg baax tamit sama coach su Badiane maa ngi koy bëgg mm. ak Aliou bu jóg bëgg baax ab nañu ko maa ngi koy a baax a baax ak moom kebe ñaar maa ngi ziar baax ñoom mm. grand gom dañu waa jaar ba yëpp nag sama dëkk mais lu tax door koo sa sa làmb ci Dakar fii combat arène. waaw dëgg la fii nag xam naa combat yi tax mu xaw a yéex nii. Hmm. xam naa mën naa ren sax xëy na koor gi moo taxoon ak xëy na feebar bi yàlla na fi yàlla jëlee ak jàmm. Hmm. loolu moo taxoon combat yi xaw a tabe. Hmm. Euh, yàlla dogaloon sax daaw jëlee amoon nañ combat arène mais nag ko ba am seen jour. bis ne dem nag incha am ndam lu set buy ñëwaat toog ah. waaw bu ñu tabaski ba am cinq jours. ba am cinq jours incha allah. bawal foofu ak sama adversaire Marley 2. Ah. kooku lu lu laa koy teg. Hmm. kooku li ma fu ma yi laa ko jaarale miin naa ko bu sàmmee sama terrain la miin naa ko. xam nga da ngay dégg ñu naan suuf da miin suuf. waaw dama miin suuf soosu. incha allah fu ma jaarale gars yi laa jaarale moom fu ma jaarale Double Dof laa jaarale moom ak ñeneen ak ñeneen. ah daal jàpp nga ne yow benn nooy a jàpp tabaski ba pare cob sa yàpp ñëw jàppoo daal. ragaluma loolu damay lekk ba suur yàlla wax wala déggoo ma de sangu ba set jël sama temps boo samay gars yi sama oto jël samay quelque ci bi gars dem jàpp daan suñu. parce que xam naa xam naa xam naa xam damay liggéey. Ah. man instant bi yaa ëpp doole yow instant ñaar kilo ngay est-ce que ñëwee Omar sax. non Omar Omar bu dugg ci loolu laaj bi Bébé Lambaye champion bële. waaw Bébé Lambaye xam na ko. Bébé Lambaye ko nga bay laaj kooku xam na bu baax a baax a baax. Ah. kooku tout le temps ñu ngi déggante maa ngi koy ziar au passage bébé. Bébé Lambaye doomu Lambaye maa ngi koy ziar bu baax. Ah. di bëggee rakam xadi sama jigéen maa ngi koy bëgg bu baax ak ñoom ndey. di bëggee sama waa koñ tamit maa ngi bëgg bu baax sama ñoom yaay maa ngi bëgg bu baax. Mm. du ma fàtte leen bëggee. acca lancer appel supporter de fans club gars yi dafa seet yu bari bu ñu tabaski ñu yóbbaale ko bu ñu demee mën a yëngal ci kaw nga eh, bu baax di la woo. Ah. Sarr maa ngi lay di woo Ngom maa ngi lay bu baax yow itam xam nga. Hmm. di woo Abdou Mbok yéen ñëpp di woo incha allah ngeen jàpp ci combat bi. Hmm. defal ma ay test tiset yu bëree bëree bëree bëree bëri kaar yi rek incha allah ren moom cinq quarts laa bëgg a yóbbu daaw trois quarts laa yóbbu woon. Hmm. mais ren moom cinq quarts laa bëgg a yóbbu incha Eh, Boole Mbaye maa ngi lay woo borom Mbaye Ephraim maa ngi lay woo di woo Omar di woo Camara sama grand hmm. di woo ñoom Lar Cissé maa di woo yéen ñëpp woo Mout Faye ba hmm. di woo ngeen ah. hmm. man ak carrière maa di bëgg bu baax a baax la Marème 2 li ma xam na ko bu fekkee li ma la mën a xaar mooy lenn taxawal nga dëggal sa bopp nga boo taxawee dëggal sa bopp bëri incha allah ba léegi ma koy wax naa am bëri li ngay bëri du yoon ay cinq minutes. deux minutes waaw dafa gaaw. ay cinq minutes deux minutes waaw gars yi naa ma dafa gaaw mais waxuma la cinq minutes mais yow xoolal du ñu yegg sax deux minutes boo taxawee barke Rasulullah dama lay jàpp du ma la daal incha liggéey naa defal laa ci loolu laa te ñu dem nag incha allah après ngay comprendre di woo waa mafia bi carrière de maa ngi hmm. maa ngi koy woo hmm. di bëggee Ilimane bu carrière tamit di sama grand frère ku ci mel ni ñoom euh, Baye Sarr maa ngi di bëgg bu baax a baax di euh, ku ci mel ni ñoom Ibrahima maa bëgg bu baax a baax ñoom Fallou hmm. xam nga waa Njaarbu gépp maa ngi di woo bàyyiwuma kenn di woo waa Lambaye tamit Lambaye ku ci mel ni Dame Lambaye maa ngi koy bëggee Dame Fall di bëgg tamit euh, sama ñoom euh, jigéen ñi nga xam ne wax dëgg yàlla tout mm. saa yu ma wàccee jugee entraînement bu jaar ñu defal may reer bu am ñoo nombre ba léegi dañ ciy jàpp ñoom xarit mm. maa ngi koy bu baax a baax a baax a baax di bëgg tamit ku ci ñoom euh, Oumy ñoom ñëpp maa ngi jox seen wàccuwaay ak baax a baax di bëgg mm. a baax nag ci man tamit mbër dafa mari rek waa. non yaa ma gën a xam bàyyi ñu def noonu rek yàqu ci dara. Mm-hmm. après yow moo leen quoi gëm sa bopp la rek entraînement teg ko ci yoon quoi. loolu yaa ma gën a xam yaa faale yow ci def da ngay a kaale jeex na rek voilà su ko defee yow dootoo dara ngay mën a concentré ci ci quoi xam nga mm-hmm. gëm liggéey gëm yaa ngi yaa ngi voilà te xam nga soxla tamit da ci am gën a xam wala noonu incha allah daal maa ngi woo gars yëpp kenn képp kuy suivre carrière de Baye Fall rek maa lay woo incha la jox rendez-vous ci jox a baax ah. ah. a ay sant nga boore sant bi du doy parce que temps yu jógee day am ñoo xam ne mooy sant ba wàllu bu ba pare cinq jours marle deux yow yaay sant saa lim sant dafa bëri ah kon noppi naa bu fekkee su ma santee rek marle mooy sant ah, yow naa ko ba combat bi jàll naa ko di bu santatuma baal ma nuyu kenn ci man léegi baal ma nuyu kenn ci man ah. Omar Thioman maa koy nuyu kon xanaa léegi koy nuyu ak Baye Ndiaye ah. a baax dégg a xam mm. koy béggee a ak ñoom Ousmane ah. koy béggee bu baax top 5 ba am ba sa doon bëre mais laa ñu dafa mujjee yàqu mm. di ziar tamit di bégg soxna ak Modou Faye sama baay maa koy bégg baax a baax. ak ñun équipe bi ma ci non damay nuyoo parce que sant gi nee nga bu ma santee. waaw bu sant damay nuyoo quoi. mais bëgg naa la baax a baax. kontaan naa ci yow bu baax a baax di bëgg a falu. dèjà ñoom Kébé Ndiaye gars yi maa ngi ziar ñoom xarit. dèjà ñoom Moussa Fade. jaajëf Sow Suba Diagne. Mm-hmm. ñoom Aliou maa ngi di woo baax a baax. Mm-hmm. Eh, maa ngi lay woo eh, Sarr Aliou Guèye. Ah. Cheikh Mbaye maa ngi lay woo Cheikh Mbaye ak Cheikh Mbaye bëri bagage yéen ñëpp maa ngi di woo leen jàpp ci combat bi defal ma ay titres incha allah ma dem bëree jàpp daal ñibbisi te parce que am cinq jours hmm. bébé la maa yow xam nga xam nga ma xam naa la yow fi ñuy jaar ah. ah? <laughs> a dal baax ma ah? dama koy ci xam nga xam di ko tudd voilà di tudd di ko yore nii quoi mais ñi ma ko mën a xam la dama koy siiwal ba ñëpp gis ko hmm. moo ci war incha allah bis ba lay comprendre. dëgg la maa ngi woo ñëpp nag waa mafia bi. Hmm. maa ngi woo baax a baax a baax waa mafia carrière deux bi. tout le temps ñu ngi ci biir. Hmm. yéen ñëpp mënuma lim ñëpp parce que da ngeen a bëri. Hmm. plus de deux cent personnes ci groupe tamit mënoo ziar ñëpp. mafia bi yëpp rek waa mafia bi yàlla dogal mafia bi lañ ko tuddee. kon mafia carrière deux bi képp ku ci nekk rek maa ngi lay jot suwaay waay. di la woo ci lam ji incha allah. dëgg la seize nag treize nag incha allah moom ñu ngi koy pare daal. Ah. ak ñi ci war a àndal yëpp. waa Baye Frère xam nañu fi xam nañu ma xam naa leen. maa ngi di xaar incha allah kon noonu la demee. Ah. comme ni ko waxee rek làmb fair play la. dëgg la day boole du tàggale. dëgg la instant moom mi ngi toog mi ngi waxaale ci adversaire am. ñi ko xamul woon sax ñu ngi koy bàyyi xel. grâce à moom. wax mm-hmm. na làmb ñoom ñooy mayante xaalis. foog ree la rek mais ku daanu wus tam làmb wecc tañ ci. Mm-hmm. moo tax mais ñu leen di ñaanal bu baax a baax macha allah di rafetlu communication bi. Mm-hmm. di ko ñaanal carrière bu jàmm moom carrière. Ah. macha allah loolu yëpp ñu wàllu champion carrière numéro un. waaw carrière du ma ko fàtte. ñu koy dégg bu baax a baax da ci jàpp bu baax a baax a baax a baax. maa ngi koy ziar bu wér carrière. sama lépp la. sama combat ba le passé rek mooy may wan ne gën a la fanaan. billaa walaay. di ci jàpp dugal gën wala turandoo dafa fort. non dafa fort tuddee boppam rek war nga ci waslu àq. dem ci bu baax a baax ku baax ci moom la leen tuddee tee boppam jàppale leen ko. voilà xam lu rëccu lu leen tuddee boppam. mais maa ma sant tamit sama yenn maaraay. yaa ngi moo sant tey moo sant fële. waaw waaw bàyyi ma nuyu leen waaw waaw léegi maa ngi nuyu Baye Modou Baye Modou maa ngi koy nuyu bu baax Baye Modou maa ngi koy nuyu bu baax. Ah. waaw ak accident maa ngi lay ziar bu baax a baax di ziar tamit di ziar tamit waa Fisel Mbarane. Hmm. di ziar waa Fisel bu baax a baax a baax waa Bangay Séeréer. maa ngi ziar bu baax ñun dinañ xam bu fekkee ñu ngi siiwee dinañ xam. Hmm. ziar naa bu baax a baax ñun waa Fisel. jërëjëf ziar bu baax. Hmm. kon loolu demee ah carrière de la woon ci biir OSTV rendez-vous prochainement ak beneen champion beneen daanaana ah. yaa ngeen jëf gars yi. yaa ngeen mën rang muy gaaw. ah bu ragal baax. rang muy